sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillahi seydina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli yaa himmata sheyhi uxdur lana bi haadha almahdari wal taati fii bi nazaratin taati lana bi zafari wala xawla wala quwata illa billahi al aliyyil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu fas yéene dugg ci baabu annasabu sharif ci bunt bi nga xamante ne mooy wax sosab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi maanaam cosaanam ak nu mu sosoo nu mu ñëwee ci jabrul kasri ci diwaan jabrul kasri mu ne xabaza silku nisbatin nasabathu sunnatul mustapha suduqil maqaali mu ne xabaza kabaax waay silku nasbatin ràngab askan boo xamante ne nasabathu sosoo na ci juddoo na ci bàyyeekoo na ci kan sunnatul mustapha sunna yonent bi mooy moom mustapha suduqil maqaali kiy aji dëggal ci ay wax ki nga xamante ni mooy aji dëggu ci wax moom daal mooy moo moo moo moo dëggu ci wax waaye it tamit mooy dëggal ci wax de moo dëggu ci wax waaye nag ku wax lu baax wala nga def lu baax it su si noppee rek loolu lu baax la léegi xat badaa afdalul wujudi kiraaman min ka min kiraamin afaadili abtaali xat badaa feeñ na dëgg-dëgg yàlla afdalu wujudi ki nga xam moo gën ci nekkteef yi ci li yàlla amal kiraaman muy doon ngir moom mu doon ku baax min kiraamin bàyyeekoo ci ay nit ñu baax afaadi li ñoo xamante ne way gënale nañ ab taali ay jàmbaar ñoo xam yàlla gënale na leen ci ñu dul ñoom yaa ngi dégg yeewal moom mu xamee moom di nelaw waaw ñëwaatal nasabun mu ne moom cosaanam moom yontu yàlla moom salaa salaam fudilu gën lees na kiraaman ci ay sang nit ñu baax bi maanaa moom yonente salaa salaam ci ay nit ñu baax lañ jóge te ñooñu la yàlla gënale wa kullun te képp kenn ci ñoom muxsinun wa aji rafetal la woon ku doon rafetal la laa musaafixuun bi tawaali nekkutoon koo xamante ne da doon mooy yàlla da doon da doon musaafix mooy kuy njaaloo nekku ne musul nekk kuy njaaloo bi maanaam maamu yonent yëpp bi tawaali ci toftale bi maanaam soo toftalee maamu yonent yëpp nga ne kii kii moo ko jur kii kii moo ko jur ba ci yonent bi mboolem maamu mi mu ne ñun ñëpp danga leen di compter ci ñuy rafetal képp koo ci jël ci ñoom rek kenn koo ci jël ci ñoom rek nit ku doon ku doon rafetal la ku doon sellal la moo tax wax ji day rejoindre day dëggal Seydi Ahmad Tidiane li mu indi ci kitaabul jaami mu Muhammadul Mishri mu ne ma axrajallahu nabiyan min maniyin munjasatin bi kufri mu ne yàlla musut génnee man yu ci ndig ndiggëb ah nit koo xamante ni dafay mooy yàlla wala koo xamante ne dafay kéefër koo xamante ne dafa dafa daan bokkaale wala daan nekk ci kéefa yàlla musul génnee yonant foofu sax Cheikh Tidiane dafa ne yàlla musul génnee ab yonant ci ni ndiggab wala boog ci man yu mooy sperme pollué sperme boo xamante ni ndigg li mu nekkoon wala jëmm ji mu nekkoon da daan mooy yàlla kon sañ nañ wax ne yonant bi sallallahu alayhi wasallam ay maamam yépp dañoo selloon moo tax Cheikh Tidiane yi Mohamadou Misiri laaj ko ne ko waaw léegi hasard nag te nga naan bàyyi Ibrahima da ko doon yedd pour mu jaamu xaram mu ne déedéet du papaam bàyyi taxam la woon waaye du papaam hasard du papa yi Ibrahima yaa ngi dégg papa yi Ibrahima de yaakaar naa mooy Taruq ibn Saarux kooku mooy papa yi yonent yàlla Ibrahima noonu la tuddoon mu ne kon yonent bi saa sam soo jëlee ay maamam yëpp da nga gis ne kenn mosu ci mooy yàlla kenn mu si njaaloo fii njaaloo lañ ci jublu moo tax leer yenn leer yi soo bëggee mu wàcc ci yow da ngay moytu jigéen ñi na la dagan rek ndax am na yenn xeetu mooy yàlla yi soo ko defee rek yenn xeetu maqaama yi tamit doo ko jot loolu sew-sew la daal ñu bari xamuñu ko waaye am na yenn xeetu mooy yàlla yi daal yoo xam ne soo ko moytoo it yenn xeetu teranga yi day wàcc ci yow waaye nag duwul ne soo ko defee yàlla du la baal soo ko defee tamit jéggalu ko yàlla baal la bàyyi nee na jaam su defee bàkkaar bu munti doon bàyyi nee na yàlla may na ko six heures de temps pour mu baalu ko ngir yërmandeem six heures de temps yi su matee te baaluwu ko rek ñu doog ko bindal bàkkaar boobu waaye ñii nag ñoom dañoo mayul sax bay xaar ñu leen di baal nga xam ne kon ñi sell nañ ñoo ñooy maamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax tamit di wax yonent bi rek waxoo ci ay maamam day mel ni dese nga ko tagg ndax xamuñu mooy kan nit nag soo bëggee ñu xam mooy kan danga koy indil maamam yi moo tax géwél yi di def loolu géwél yi man li ñuy def noonu dama ci ànd de waaw di indi maam yeeg yooyu dara newu ci sax de man de sama gis-gis ñu wéy faqad c'est que ëppal rek moo baaxul waaw pour bëgg a wan nit ki dafa baax rek mën nga kii waaye nag parfois bul ëppal daal faqad axtaara rabbuna aadama waxtaara si salwa si xaawil ma aali faqad axtaara faqad axtaara dëgg-dëgg tànn na rabbuna borom suñu aadama mooy yonent yàlla aadama mu nekk maam bu njëkk ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxtaara siisa ñi moom la ñu woowee chiisa ñi naan siisa waaye arab chiisa lay wax chiisa chiisa ndax aadama awa da daan ëmb waaye bàyyi jàngale na ko sax soo leen demee ci tafsir suratul baqara bi la koy tafsir bi da la koy wax awa tout le temps da daan ëmb ñaari ëmb benn góor ak benn jigéen su ëmbaatee ëmbaat beneen góor ak jigéen mu ne biiru góor gi mooy takk jigéenu biir bële loolu loolu xam-xam la bàyyi rek a xam loolu kenn xamul bu mu ko xamee bi maanaam comme exemple daal awa aadama awa ëmb tey 2014 ah mu ëmbaat par exemple 2016 ah góor góoru 2014 moom mooy takk jigéen bu bàyyeekoo ci ëmb ci ay doomam de ay doomam ñooy takkante mooy takk jigéen bi bàyyeekoo ci ëmb 2016 xam nga góor gi moo mag kee tamit vice vice versa noonu la noonu la daan sëy léegi nag aadama awa sëydati suñuy maam xawaa awa sax bon damay dama leen koy leeral awa la ñuy wax ni mais xawaa mooy tur bi ci arab pire mais awa la gaa yi wax xawaa moom danaan ëmb par ñaar ñaar ñaar ñaar mooy jumeau dañuy wax jumeau accouchement gémellaire multi accouchement multiple gémellaire la daan def léegi siisa moom ba mu ñëwee moom benn rek la doon bàyyi ne nag kooku nag moom moo doon leer gi moom ci aadama dégg nga kooku tamit maamu yonent bi salaa salaam mooy siisa moom rek moo ñëw doon kenn mu doon leer gi kon fii bàyyi la nga lay jàngal leer gi fu mu jóge ca yàlla ci aadama ci siita alwasiya ki nga xamante ne moom lañu dénk gis nga mooy ki ñaan moom moo yore dénkaane gi xaawil ma aali ki nga moom moo làmb kawe su ma idrisa ginnaaw gi moom idrisa yonent yàlla idris ba da haza ginnaaw kooku li haza jëm ci kii kan xaj sama moom lañ woowee min nuur xaj sama jëm ci kii nga xamante ne xaj sama kawe na wala boog am na làkk kawe na min nuuri nabi yi ci leerab yonent bi saa sallam la kawee almif daali ki nga xamante ne moom lañ gënale ismu maful na moom moo gën moom lañ gënale yaa ngi dégg ba léegi moo muy wax de siisa su ma nuuxa su ma ginnaaw idris su ma nuux yaa ngi dégg leer gi jaar na ci yontu yàlla nuux su mal xaliil la mooy ibrahima alayhi salaam mooy xaritab yàlla bi wa ismaila ak doomam ismaila wa huwa zabixu te kooku moom mooy azabix mooy ki ñu bëggoon rendi mooy ismaila ismaila zeynu rijaal yi bàyyi tagg ko fi ne moom mooy taarab góor yàlla yi ndax ndax ni mu meloon ak bon loolu taarix bu gudd la tabari bi su ma leen ko génne loon ku ci nekk ci ñi mën naa la wax ci taarixam maa ngi ko yor fii su ma àddinaana topp addinaan baadu summa ginnaaw moom ma aadan bi maanaa su la nee addinaan ke ciy topp rek doom doom ja lay doon dégg ngeen ginnaaw gi ma aadan ci maamu yonent bi salaa salaam la la bokk ma aad wa nazi wa wa nizaaran ak nizar ci maamu yonent bi salaa salaam mu ne axsin rafetalal waay bi silki la aali ci bii lay rànga wurus askan askanu wurus soo koy woy sax nanga ko rafetal tamit mu darun ku ñuy wax mu dar moo tax bàyyi sax da daan wax unaashidu madahal xaashimi mutarannima waaw dangay day tagg yonent bi di ko saddal ay bayt waaye di ko neexal di koy woy woyu neex moo tax gars yi di koy woy woyu neex yi mu dar ku ñuy wax mu darun najluhu mu ne tamit ginnaaw nizar am na ku ñuy wax mu mu dar ah najlu doomam ji kan la wa Ilias Ilias ma am mudrikatin ak mudrika ma am xuseymatin ak xuseyma al abtaal yi ñii ñooy jàmbaar yi jàmbaar yi wabnu haasa doomu kooku doomu kii kinaanatu mooy kinaanatu a nadri doomu kinaana tamit nadri yan mii moom lañ askanlee wala bokk des des kay askanlee maalikan ñu koy woowee maalik des koy woowee wala bokk ko jab maalik asla fixirin ki nga xamante ne mooy cosaan ab fixir ku ñuy wax fixir waxuma fixir nag arab yi moom ñoom lañu woy fixir bàyyi am na fu mu koy wax sax si diwaanu siti mu ne asla fixiri saafi alxisaal yi ñi nga xamante ne ñooy gën a se- gën saa sell gën saa sell ci jikko bët yaa ngi dégg saafi alxisaal mu ne xaalibun ak xaalib najluwu doomam lu ay yun ak lu ay wa kaabun ak kaabu najluwu ak doomam mura muratun ak do kan doomam kilaab mooy kan alxaali ki nga xamante mooy ku kawee ku màgg ku cher ki wa xusay ak xusayn daa ngeen daan dégg toujours maam yonent bi ñu naan xusayn ibnu kilaab kilaab ibnu muraax daa ngeen koy dégg mooy lii xusay wa xusay ak xusay ah abu maxiir muxiira ak abu maxiira yan mi des kay askanale xaashimu dinañ koy wooyee xaashim alxirku sang bi nga xamante dafa tabee mën a maye waay al mustafidul nawaali ki nga xamante ne dëgg-dëgg moom mooy aji waamal wala mooy kiy bëbbal ay may kon yonent bi saa salaam gis nga ay maamam ay joxekat lañ moo tax yonent bi mooy joxe bi yàlla ci nit ñi yàlla bu mu joxee rek looloo yonent bi moo tax yonent bi saa sam sëgam si ay nit ñu mën a joxe la bàyyee ko kon xam ngeen ne dina jox ñëpp bàyyi kenn sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla jox mu jox ñëpp baada haazaka ginnaaw kookuleeg kii ah ginnaaw kookuleeg maanaam muy wax ak yow mu ne ginnaaw kookuleeg koo kookuleeg kookule ah shaybatun ku ñuy wax shayba nuuri shaybatu nuuri wala xamdi ñu koy wooye shaybatu nuur wala shaybatul xamdi maamu yonent bi la moom moo jur nag abdullahi papa yonent bi mu ne aynil kamaali ki nga moom mooy jëmmi mat mu ne kan la mooy walidul mustapha mooy baayab yonent bi ki ñu tànn a zabixu abdullahi boobu lañ naroon rendi moom it parce que maamam yi tamit dafa am lu ñu nisoroon su ma amee fukki doom dinaa rey kenn jaamoo la ko santee la ko ba ñu demee sànni bant yi mu mu jàpp Abdoulaye tout le temps ñu ne nañ ko wecceeg fukki góor ñu ñu jàng ngeen ko ci histoire histoire ñu sànniwaat affaire bi dalaat ci moom ñu ne nañ ko weccewaat yeneen gileem yeneen gileem yeneen gileem yeneen gileem ba mu mëtt xam téeméeri gileem ñu doog koo bàyyi. après da mu doog a dal feneen kon nga gis ne moo tax ñu tuddee ko azabixu ki nga xamante ne moom lañ naroon rende wala moom lañ naroon rey ñeel yàlla jox ko yàlla waaye ñu njot ko. dañ koy njot ku ñu njot la xam nga comme nawet nañ ko rey rek finalement dañ koy jot moo tax mu ne al mufadda ki nga xam ne jot nañ ko. dégg nga. aaxirun kan la moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo mujj awalun te moom moo njëkk bi duuni mu xaali ci lu dul lu jomb lu impossible ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam soo bëggee xam loolu soo demee ci dawaan bàyyi dina ko firil dina la ko firil wax ji. wa aadamu lam yakun wa yabqa rasulun daiman wa muazzama rasulun minal mawla wa aadamu lam yakun yonent bi mu ngi bàyyeekoo si mawla suñu borom wa aadamu lam yakun te fekk aadama nekkul woon kon kay moo njëkk aadama wa yabqa rasulan moo te day des doon yonent mu azama te ñu koy màgg bu ñuy màggal kon kay ku mujj it xam nga moom la kon kay moo njëkk moo mujj bàyyi leen loolu impossible lul de pourtant ci dégg waaye aarif yi lay waxal de ñoon ñoo xam lii yaa ngi dégg bittifaaqi ci dëppoo mu ne li ma wax nii ne kii kii moo ko jur kii kii moo ko jur yonent bi kii moo ko jur kii moo ko jur ba ci adnaan maa bayna haza wa adnaan ci li nga xam moo dox ci ci diggante lii ba adnaan li ma wax nii sànq ba maamam bi ñëw adnaan ñépp dëppoo nañ ne nii kii ak kii moo ci topp kii moo ci topp kii moo ci topp waaye nag bàyyi ne wa ma ba'dahu bi xulfi rijaali ginnaaw loolu nag bi xulfi rijaali nekk na ci werantey góor bi maanaam utey wax utey góor ñi utey góor ñi nekk na ci seen wax ñii dañu ne lii la ñii nee nañ lii am na sax xadis buy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ginnaaw adnaan daal ku wax rek da waxoo dëgg waxoo lu am xamoo li ngay wax bi maanaam kon maamu yonent bi soo leen compté ba adnaan mën ngaa taxaw yaa ngi dégg waaye adnaan mooy après loolu lu ñu war a dox la yéen yéen a ngi dégg mu ne wa saxiixun bi annahu najlu ibrahima wa huwa alxaliilu yaalal xilaali wa saxiixun te wér na bi annahu naka moom yonent bi saa salaam najlu ibrahim moom mooy doomu ibrahima waaw doomu ibrahima la de deretu ibrahima la la bëgg wax mooy ibra yonent yàlla ibrahima maam la ndax yàlla ne na ko seen seen bàyyi ibrahima mu nga am moo leen moo leen moo leen moo leen njëkk a woo sa maaku muslimoon moo leen njëkk a wooye ay jullit waa léegi yéen yàlla dina wax ak yéen dinaan ko sa bàyyi ibrahima te te nekkul bàyyi kon loolu rek waroon na wane ne moo kon deret ibrahima ndax ibrahima moo ñaanal yàlla may ko descendance honorable te xam nga ne descendance bi mënul gën a honorable yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ku gën a honorable ci descendant yi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ki gën a sell ci sët gën a tedd ci sët yonent bi rek la mën a doon yeneen yonent yëpp ah rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin moo tax ibrahima fu mu xoolee yonent bi xolam sedd te gis ngeen ibrahima bi ba ci kaw dafa am ibrahima ci suur ibrahima ci nubuwa day am ibrahima ci wilaaya ibrahima ci kaw mooy kan yontu yàlla ibrahima waaye nag am na ibrahima ci suuf de mooy bàyyi ci wilaaya bi ci wàllu yi waaye xoole ibrahima bii tamit fu mu xoolee yonent bi xoolee mu sedd xam ne dafa sew de wax ji kenn mënu koo wax ci kaset ci enregistrement waaye dañuy enregistré pour barkeelu rek wa huwal xaliilu yàllal xilaal te ibrahima moom mooy xaritab yàlla bi yàllal xilaal ay maa ko yéem boobu boobule xaritoo woon yéemu na kuy xaritoog yàlla loolu doy ñu ne Ibrahima mooy xaritu yàlla te ñëpp xam nañ ne yonent bi mooy xaritu yàlla wala boog yonent bi moo gën a jekk caa xaritu yàlla de yéem na ma maa ko yéem boobu lee xaritoo waa xaritoo woon parce que yonent bi moo nekkoon ci ndigg Ibrahima moo tax kon yonent yëpp nekk bi ñu nekkoon leer gi mu leer gi ni mu jaar nekkee woon ci ñoon moo tax yàlla tegoon leen fi mu leen tegoon waaye yonent bi rek la yàlla doon xool dégg nga rabbi ay borom sama. attir na nga gëttal waaye na nga xeeñal na nga parfumé xabral amini bërëbab amin bi bàmmeelab amin bi ku ñu wóolu ki waxab lii te nga may ma nusratan ndimbal kay su ko defee ah lu ma daal di kawe alal ajiyaal yi samay maas ma daal di kawe samay maas kon bunt boobu foofu la jeexee ñu ñu daal di attaqué kon beneen bunt incha allah. وما ذلك على الله بعزيز السلام عليكم ورحمة الله